<laughs> grand bi nekkoon li li mu ndogoo xanaa ñaay la ndogoo mi ngi meles dugg rek. gri gri borom communication. mais don kii na don li nga ndogoo dafa neex yaa ngi meles dugg rek nu mu demee noonu. waaw dafa ay ci communication de. Ah. <laughs> non non maa ngi la fi xaar soo da ngay ñëw ndogu si. ah soo da ngay eh, ñëw xëdd si. lan moo tax nga ne dafa ay ci communication gri. <laughs> noo def ci foor nag communication moom amu ci morom. <laughs> am na ci é c'est un homme de communication c'est un communicant. Uh-huh. Hmm. alors Gaston li ma bëgg ñu ñu ñu ñu tàmbalee waxtaan wi mooy euh, euh, euh, hmm. dimanche bi passé la je pense que am na benn coow loo xam ne hmm. jugoon na fi ñu invité woon ki nga xam ne moom mooy président CNG bi Pape Abdou doon wax waxu ay maanaam caution boo xam ne war nañ ko joxe hmm. ba nga xamante Pape Abdou nee na gëmul loolu te itam du def mais ki nga xam ne moom moo jiite CNG bi dane loolu yàgg na fe ndax yow mi nga xam ne yàgg nga ci làmb yàgg a tëgg làmb ndax loolu euh, mus na fi am euh, ngeen di joxe ay caution ak ñaata ngeen daan joxe. non loolu loolu yàgg na euh, jërëjëf loolu effectivement mas na fi am man bokk ci sama côté man man daan nan ma laaj ko daan nan ma laaj caution ma koy joxe.

mais qui dem qui dem bay tëgg un million bu mu joxe caution du jaaxalu ko xëy ci ci defin la mais wax la communique euh, caution hmm. alors li euh, gis nañ aussi moom moo jiite. ñi nga xam vraiment jarul jarul jarul ndax ndax dafa am ay ay kuréel yoo xam ne moom moo fi am yow ci ban kuréel yooyu am na fi man gaa man mosuma bokk ci benn kuréel maa jiitu ci làmb ji depuis 92 maa ngi fi mais mosuma nangoo bokk ci kuréel parce que tout le temps day yu coow yu mel ni rek laa ci doon bañ mais man xulóowuma cee kenn awma cee kenn problème ñëpp laa yemale mais bokkuma ci ay kuréel parce que ay ay këral de bas étage lay bañ. ñu dellu si tuuti ci euh, euh, diggante Balla gay ak ak ak Eumeu Sène parce que gis nañ ne ñoom ñaar waroon nañu dem euh, def benn émission ni ki démb ci benn télévision muy TFM mais gis nañ ne Balla demul alors ci biir émission bi sax maa ngi dégg sama naataango Lamine Samb di wax ne xamul lu tax Balla gay demul ndax Balla gay dafa tënk woon ci contrat moo tax demul wala itam dafa am nu mu demee moo tax demul non Lamine Samba xam ne li tax Balla Gaye ñëwul wax na ko fa sax d'ailleurs Balla Gaye dafa tënku ci contrat ci loo xam ni yëguma ko woon ban koy nas et tout ça man nag am naa sama personnalité am naa sama dignité bopp boo xam ni kenn du ñëw di perturber sama organisation wala fekk mbër moo xam ni dafa nekk ci sama contrat ba nga bëgg ko utiliser nu mu la neexee kooku xëy na ñeneen danoon ko nangu mais man du ma nangu loolu Eumeu Sène dem na parce que Eumeu Sène sama contrat moom jeex na depuis trois semaines lanu seqoon lépp jox naa ko ko amatul benn problème fuko neex mën naa dem fuko neex mën naa si devait libre mais Balla Gaye dama am ak moom ñetti contrat yo xamni ni ku ko soxla ci man ngay jaar presse bu ko soxla ci man ngay jaar mok mbeur yi ma tëgg yépp nak parce que il faut ñu tam lu baax mënu ñu nit ñi di organiser sen kër yi di organiser sen structure yi ngeen di organiser sen télévision yi bëgg nit ñi bëgg a nit ñi ay fowukaay man limay organiser lamb ji dara ëpp ko importance ci réew mi ji c'est un facteur de développement facteur de stabilité dara ëpp ko man dara jaxaluma ken fessul sama bët aussi lepp luma wara def nak dama koy def mais lepp ci yoon la koy tek je respecte tout le monde dama bëgg rek les luy ñuy defante ñu def ko ak élégance respectante nit ñepp élégant mais do ñew fekk nit ko xamni dafa jël ay centaine de millions tek ko ci ay mbeur di bëgg di defaraat ñëpp en pleine euh, pandémie laa duggee ci pas à part pas pour me des fleurs mais parce que mhm. est-ce que ne tamit da nga bañoon rek est-ce que nekkul ne da nga bañoon Balla Gaye dem fa ñoom ñoom diggante Balla Gaye ak Eumeu ñoom ñu tëggu ko est-ce que nekkul loolu nga doon moytu. non du question bañoon Balla Gaye. ah non non dañ ko mën a tëgg. Balla dafa nekk sous contrat à trois trois combats xanaa deux su ñu ko xanaa deux mille vingt quatre lañ koy tëgg wala deux mille vingt loolu mënul nekk aw ma lu may bañ man aw ma lu may daw. Mm-hmm. man làmb ji dara boolewuma ci lu dul jëf. fekkee boolewuma ci leneen boolewuma ci jëf moo ma boole ci làmb ji ñëpp xam ko itam man làmb suñ koy wax ku ne suñuy wax euh, fa la ngay liggéey xam na ni la nga fa nekkee mais làmb it suñ ko waxee xam na ni Gaston xam na nu lan la ci ban poids la ci am waaw léegi uyul euh, Pape Aline Pape Aline d'accord kaddu yi am na solo su ma di Gaston ñoo ngi rek la euh, bi tey mais amul benn problème man méréwuma kenn mais daal nit ñi nañ respecté ci lépp ñu koy def par élégance boole ko ci fii kenn feesul bëtu kenn fii ci réew mi du moins Gaston Mbengue kenn feesul bëtam kàddu yi rafet na su ma nijaay Gaston ñoo ngi lay nuyu di la jox sa cër ak sa wàccuwaay euh, gis nañ ni it euh, bi coow li amee ministre des sports muy Matar Ba wowoon na promoteur yi daje ak ñoom ngir saafara am ndax Gaston demoon na wala yable na fa ndaw ak it CNG bu bees lanu fal ngir liggéey bi yomb tey ji seen digganteeg promoteur yi lan moo war a gën a mën a yongal collaboration bi Matar Ba saa yu ma bëggee gis ko la fa yóbbu woon promoteur yi man bokkuma ci man man bokkuma ci association promoteur bokkuma ci yooyu man Matar Ba sama rakk la muy comme ni ko Gris Bordeaux waxee léegi Matar Ba est un homme de consensus Matar Ba nit ku baax la Matar Ba su sport bi excès fii fépp stable c'est parce que Matar Ba la donc ñëpp ñëpp njukkal lañ koy yoral. respect lañ koy yoral teg ko ci place am lañ ko yoral parce que c'est un ministre de la république un ministre de la république on doit le respecter. Mhm. ku dul ministre de la république sax du ko war a respecter waxtu bi ak ministre la république. te mi ngi def li ci war ci làmb li ci war ci sport en général Matar Ba mi ngi koy def donc il faut que nit ñi respectante làmb ji du làmb ji du pétrole du diamant ba ku jóg bëgg ci yàpp nit léegi ku mu neex nga def la neex ci làmb di yàq nit la neex loolu. du dëgg du yoon. <laughs> Gaston looy xaar ci Gris Bordeaux. il faut que nit ñi il faut que nit ñi yaru nit ñi respectante. Mhm. parce que nag kan ji. Gris Bordeaux combat. d'assaut fu mu ci toll. li may xaar ci Gris Bordeaux mais Gris Bordeaux c'est un champion. Mhm. Gris Bordeaux peut-être que lu yàlla dogal la rek. mais Gris Bordeaux heure bi war naa fekk muy muy préparer combat ak Balla mais yàlla. Euh, seytaane dafa bari doole mhm. et puis loo xam ni lu warul am doom mhm. mais ñu ngi ci ñu ngi ci moom mhm. et que Gris mbër la champion la da Gris ku mën a defar lamb la Gris bokk ci écurie boo xam ni écurie bu rëy la muy face Dakar Dakar ak Fass suñu xam nga suñu jaxasoo boole woo nekk benn ma lamb mën naa soppi ci lamb lu bari l'essentiel rek liñ leen di ñaan na mbër discipliné àndandoog euh, les dirigeants de face Dakar jàppale leen parce que lépp mër yi la. mais Gris Bordeaux ne woon na dootu la bëreel de wala da cee génnaat jàppale Fass Ndakaaru suñu taxawee. kii ah, moo nekk léegi nag kii kenn du leen jaaxal ci làmp bi Gris nag c'est un champion. dana bëre heure bii tey war naa fekk moo am ci ñaari combat ñetti combat yi yii ñëpp am mais nag lu jot rek yàlla def. Gaston Gris Bordeaux ci boppam ne woon na dootul la bëreel Gris da cee génnaat wala daa am foo téye Gris ci poñ Gris sama partenaire la déedéet <laughs> déedéet Gaston tontu woo de. non non non non non. lii mu ngi nii toog giree gi mu toog mbër la man il faut que nga wax lu leer. man léegi yooyu ngay wax noonu man xam naa ma Gaston la gis nga loo bëgg wax. xam naa ma laajaguñ la laajaguñ la mais yéen yéen eh, yéen yéen yarkatu nit ngeen. non non bàyyi loolu. yow yow yarkatu nit nga. xameewu ma la nii Gaston nee na Gris Bordeaux mooy. Gaston xameewu ma la nii. waaw léegi ñu déglu Gaston waaw ah. eh, léegi Gaston tontu ñu ñu. voilà ngir yaa waxoon ne. dootoo bëri Gaston mais ah, ah, ma ngir bëri ah, li Gaston wax laay wax. waaw. Gaston partenaire la. waaw xaaral waaw xaaral may ñu may ñu tuuti. gré entre un promoteur et un lutteur. c'est des partenaires. waaw d'accord li la Gaston tontu laay xaaral na leen ko. on est loo bëgg dégg. léegi jeex jàmm la. waaw waaw non affaire xaalis bi xaalis bi de c'est des partenaires waaw loolu eh, eh non non c'est amul ça passé dama ne ana le de la wala des partenaires Cheikh Tidiane may ma tuuti Cheikh Tidiane may ñuy dégg Gris question par question la nga tontu ma nit ñi déglu mu jeex Gris Bordeaux moo ne dina bëreel ñëpp ba mu des Gaston ndax Gris dafa denc loolu hmm. waaw wala ah. wala nga mat buma sañaxal dima parax parax waaw yow gasson dang ko laaj léegi mo la giri Bordeaux entre giri Bordeaux ak man on est des partenaires <laughs> waaw yow nga laaj ma li man gasson sama partenaire la mais lolu tout court wa d'accord ah? ñëw ñëw non ni tonto ko ma de dañ ñëw ma libéré garçon ñu ñew eh, ci mak yow mak mom dañ ay projet garçon mi c'est le dogging de la rek wa suma paré ci yow ki dang ko wara ñaanal yalla parce que lamb ji <laughs> ciol li ñu bari yépp ciol li ñu bari yépp waaw d'accord naa ah, léegi d'accord naa bàyyi ñu continuer ak Gaston après ñun dinañ ah, ñëw ci plateau bi bàyyi ñu continuer Gaston après moom ñu ñëw ci laaj Gaston 5 millions yi alors alors Gaston Gaston euh, euh, yi la giri war a delloo fu ñu ci toll da nga ko may wala <laughs> waaw non ah. kooku seen yoon nekku ci <laughs> seen yoon nekku ci sama sama diggante la ak Gris Bordeaux sama diggante la ak. yaa ngi dellu de. Gaston musuma laa gis ngay delloo avance mais yaa ngi delloo avance tey. Gris sénégalais la yaa ngi dellu ginnaaw. sama doom la sama rakk la. waaw yaa ngi dellu ginnaaw. yow loo bëgg dégg yow li nga bëgg dégg rek nga dégg. 5 millions yi foog mu leer. yéen on est des partenaires ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko mu àggale ñu bàyyi ko mu àggale. seen koñ sax borom boutique yi amee ngeen leen dara boutique naar yi. Mhm. <coughs> ca kenn réglé wu ko. d'accord donc bàyyi leen lu yooyu. d'accord bàyyi naa yooyu am problème. tey war naa mën a am ay combat Gris seq nañu lépp loolu il faut pas ngeen di boole ay nit Gris sama doom la cinq million du du dara yéen yéen ñooñu toog wóor na ma ni seen koñ butigu naar yi amel ngeen leen xaalis ca waxu leen ko fii ñëpp amel nit man mii dafa am am na ñu ma amel damay amel nit ñi ñu ne amel mais il faut que ñuy par ñuy am yoo xam ne di jéem a xaawi suutura baaxul Gris Bordeaux champion la mbër la tey su yàlla tuddee ma war ko tëgg ñaari yoon ñetti yoon dama koy tëgg Gris presque combat mi ci yi mu bëri yëpp genn wàll gi ma trois quarts yi maa ko tëgg mm-hmm. man mbër yi samay doom la moom am mbër yi am na ñoo xam ne ameel nan ma lu ëpp li ma Gris ameel te kenn xamu ko kenn du ko xam kooku Sénégal am mel noonu man mii damay ameel nit ñi nit ñi di ma ameel il faut ñun ñu solidaire bëggante ja di jàppalante xam ni alalu àddina euh, jarul yenn yi bi jarul champion pèse des centaines de millions mm-hmm. ci lamb ji la am ci fulla am ci fayda def ci ay di dund ci ji fi ay donc on doit le respecter et il est il est respectué aussi bi euh, bi mer di wax ni dootuma bëreel Gaston kooku mbër mu man mën na ko wax. Mhm. man mii mën naa taxaw mer mere ben, mbër ni kii ko tëgg du teem a tëgg ko. Mhm. parce que loolu affaire sport là rek da nga gis léegi ben, joueur ni du ma football du ma football yi jaraaf wala du ma football yi njaamur trois ans après ñu gis ko football il faut pas ñuy tiiñal bu ñu tiiñal kenn. Mhm. nañ teg lépp ci yoon rek sport là ay mbokk lanu suñu doom yi ñooy daje ëllëg bëggante sëy ca duñ ci man dara il faut ñu respectante ñun ci réew mi waaw d'accord man dama la bëggoon tiiñal rek parce que yow ci tiiñal ma nga dëkk chaque jour nga tiiñal ma maa ngi damay muñ bay bëgg a dee uyul uyul coro mu am lu mu la posé question waaw ginnaaw ba ñu ko nuyoo moom Père Gaston suñu question rek mooy ana la moo tax nga bëgg a concurrencer ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa euh, waa TFM puisque gis nañu ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di waa IGFM ñoom dañoo dugg ci làmb ji bay euh, tëgg combat yi est-ce que du looloo tax tey jii nga bëgg a diiranteeg ñoom mbagg. posé ko question bi daf mel ni déggu la bu baax. mu mel ni dégguñu waaw Père Gaston ñu euh, dikkaat rek ci question bi mooy dañu bëgg a xam ana lan moo tax. tey jii Père Gaston war a ak ak ñii di waa TFM ba mu indoon ñagas ñagas bi ci ci semaine bi. dañu japp ne li tax moy ñi nga xam ñom ñoo di wa IGFM dañoo dugg ci lamb ji fi nek ni bay teug ay combat est-ce que du lol mo indi sen ñagas-ñagas non non non non non ñoñ dañ ma mëna concurrence ci lamb ñoñu xeyna for nañ ci journalisme for nañ ci musique for nañ ci lenen man na for ci télévision mais lamb nak mom man jëfuma ci bolé lamb ku ci concurrence ak man nak da ngay daanu bañuma ci euh, euh, xeebu ma ci kenn ku ne am nga droit tëgg lamb ku ci tëgg lamb sax dama lay encouragé mais nag man lépp lu may def ci àddina élégance laa koy defee musique seen patron musique bi mu foor kenn du ko ci kenn kenn kenn concurrence wu ci ak moom seen presse bi kenn concurrence même yéen waa Walfadjri concurrence wu ak yéen pourtant am naa ay am naa ay euh, ay truc de presse maa ngi ak samay site maa ngi ak samay sama maa ngi sama ñaari site maa ngi ak sama yëpp mais xam naa ne du ngeen ci sama morom. ci communication. xam naa it fu ma ci yem. mais du ma du ma du ma du ma concurrence du ma bañ loolu kon damay bon sax bugguma bon. parce que làmb ji ñëpp xaj ci huit mille lutteurs ñu war a yaatal ñëpp war a bëre man dama mën a tëgg ñëpp man làmb ji suñu yaakaaree ci man pour ma tëgg ñëpp mais du ma leen tëgg parce que mënuma ko tey su ma sañoon tey mille promoteurs am pour làmb ji yaatu. ñëpp dëgg il faut pas il faut pas nit ñi il faut que ñu bàyyi di di mel ni ñu bëgg a féqale nit ñi wala bëgg leen a boole. Euh, TFM am na droit tëgg làmb ñuy ay sénégalais war a tëgg làmb kooku sama yoon nekku ji mais man nag samay organisation aussi xam naa nu ma koy gérer sama organisation xam naa nu ma koy gérer. Mm-hmm. tey du ma bàyyi kenn di ma torpiller du ma nangu it manque d'élégance ci envers moi voilà. benen bi moy lan ngay xaar ci diggante Gris ak la de guerre plus ñaari VIP yo xamné ne mosu ñoo lañ. loolu xëy suko yalla ko man na nek naa nekk yalla tuddu na ko. est-ce que yaa ngi sama sama samay corde xalaataguma kon doxagoo ci. mais de façon xalaataguma voilà. alors Abdoulaye Ba loo bëgg a laaj Père Garçon yaa ngi may def. waaw yàlla tuddee nag mën naa nekk. waaw euh, man fa laa bëggoon a intervenir sax ndax euh, Gaston. Euh, daanaka mm-hmm. lamb ji ci jamono ji bu doonoon tontin moo teggi moo daanaka tëgg. Mm-hmm. combat yu bari ñu gis ne. Eh, sa waaye la ndax mun naa wéy di xaar di la xaar ci salle d'attente bi maanaam ci salon d'honneur bi ba déwén ak jàmm wala bu dul euh, Lac de guerre de est-ce que am nga yéene euh, tëggal ko beneen combat goo xamante ne laata saison bi di jeex ñu mun a géewal euh, Bordeaux mi jóge ci ay saison blanche yu yu mag a mag waaw ah, bëgg naa ko de mi ngi sama xel hmm. xaw nag yàlla moom mooy dogal mais gri moom Gris moom su ma sañoon mu bëre ren ndax mbër yooyu nga fi tudd yëpp muy Eumeu Sène muy ñoom la de Guiers ñooñu ñëpp sax bëre nañu. bëre moo bëre Gris moo bëreegul te su ma sañoon mu bëre te man xam ngeen Sénégal xam na ni man duma ma waxantu Sénégal ñëpp xam na nañu sama jikko xam na ni du ma waxantu lu ma gëmul du ma ko wax li ma gëm laay wax du ma wut lu neex nit pour may wax voilà. Mm-hmm. est-ce que nekkul ne Gris moo ragal mbër yi rek mooy taamu mbër tey ñi muy taamu gis nga ne mu doggoo koo tëg parce que Gris dafa mel ni ñimeetul combat bi. bi de non Gris Gris taamul mbër bëgg dafa bëgg xaalis nag teel nag dafa war a xam ne nag xaalis amatul bu nu dégg Gaston yenu làmb ji rek ñu defe ne dafa indi ay saako xaalis yu muy séddale mais Gris. mais xam ñëpp xam nañu Gris ragalul. Gris nee na temps yii yaa téye jackpot bi de. vrai VIP mais nag. mbër yi nag nañ xam ni xaalis bi nu yaakaar parce que dégg naa sax fan yële benn journaliste bu bind ni Balla Gaye fay naa ko cent cinquante millions or que c'est du faux journaliste yi dañu war aussi suñuy suñuy suñuy suñuy déclaré ñuy def ay déclaration yu am crédibilité mais bëgg buzz ba bëgg a bind rek bu mu tax ngay bind di wax ay yoo xam ne fay nañ ko mbër ca fayuñu ko ko man du ma fay mbër di ko divulguer mais am na loo xam ne maa ko daan fay ci làmb kenn mënut la fexe ma fay ko ku koy xaar ci man bu yeboo nga dem sa yoon. waaw du ma nag yàlla du ma yonent du ma du ma borom alal yoo xam ne damay ñëw di ko sànni. am na xaalis yoo xam ne benn mbër laa ko dul fayeti ku ci ku ci sa staff jiital di la wax ni war ngaa mën a am lii wala dégg nga bi bindoon mbër ki dem ni Balla Gaye am na lii <coughs> bëgg xool lu Balla Gaye am ak lu mu amul. te man ma xam li Balla Gaye am bu yee boo ñu en euh, de de chanter te jéem a xam seen bopp ku ci ne xam nga li ngay jar mbër mu ci ne xam nga li ngay jar ay cinquante million xaalis la ay soixante millions <coughs> xaalis la soo ko jógee ci taabal rek nga xam ne xaalis la lan moo fi jar lan moo fi jar di xëccu ci xaalis boo xam ni wóor na ni pour lor promoteur bi tax nga koy xëccu promoteur bi soo ko miirloo ba mu jox la ko ci ay problème rek nga koy yóbbee après àddina àddina parce parce que ku ndóbit rey sa maam foo gis lu ñuul daw man làmb xaw na ma rey hmm. ku ndóbit rey sa maam foo gis lu ñuul daw mbër yi boobu delloo ci seen xel ca xam ni bët xam na lu bopp attan hmm. bët xam na lu bopp attan daa bokk ci régime bi nag Gaston fay na lii Gaston fay na laa c'est du <coughs> nga ni Gris Bordeaux nee na léegi. <laughs> nga ni dama bokk ci régime bi. waaw. mu ni de. da bokk ci régime bi léegi moo tax. fi mu ne nii nga nga lan. da ngaa bokk ci régime bi fi mu nekk nii yaay xarit. waaw régime bi de ci laa bokk ndax man li ngeen di bañ dégg li ngeen di bañ dégg yéen. Mm-hmm. ñun ñan. <laughs> ci laa ci laa bokk li ngeen di bañ dégg yéen journaliste yi. Eh. yéen ñi nga xam ni tey yéen bokku leen fenn. lu dul yàq <laughs> bugg leen kenn ku tekk tekki. man ci mag Sall laa bokk nëbbu ma ko mais nag ma leen di xamal benn affaire. Ah. man régime joxuma benn xaalis. boobu bu yóbboo ngeen def ko ci seen xel. man man mo dama dama xam ne ni mu monté combat. <laughs> man benn régime joxuma benn régime ma koo jox. ba ci Abdou Diouf bi nga xam ne moom laa bokkal mosuma koo jox. su su leen neexee na ngeen amee seen xel ak seen xalaat ak bëgg a yàq ak ak di di prêcher le faux pour avoir le vrai. ni ngeen di toje seen bopp jinax yéen rek ko xam. bon promoteur yi nga xam ne ñoom ñoo ne. ñoom ñoo ne yéen jigéen ñooñu toog di wax. Ah. na ngeen di def ba ja ba ba. promoteur yi nga xam ne dañu ne xam na ngeen di wute yéen a ko xam. kenn du ni pourtant seen i moroom rek a fi nekk. waaw yéen a ko xam. pro promoteur yi nga xam ne dañu ne te kenn jéemu cee toppatoo leneen. enchaîner rek. waaw kon nag promoteur yi nga xam ne dañu ne dañu ne na ngeen leen bàyyeeg seen vie. dañu ne dañ laa dañ laa promoteur nit rek la comme ni nga nekkee nit. Uh-huh. ma ne promoteur yi nga xam ne dañu ne dañu laa ñoom ñoo la ceebal. ba tax tey jii yow nga am yenn privilège yi nga xam ne ñoom amuñu ko. ba tax tey jii ñoom sax. fan yi weesu déggoon nañ. mais tuuma tuuma weewu béy ñoom dañu bëggoon a sax jàkkaarloo. ak ñi nga xam ne ñoom taskatu xibaar yi ngir kaas loolu. promoteur yee ko wax. waaw mais man ba yóbbu ko ma tuumal yàgg na yàgg nañ maa tuumal tuuma. taxul euh, wax ju bon dëggul foo mu jógee bu wéetul foo mu jëm foo mu jógee la cosaanoo man bañu ma ku ma tuumal bañu ma ku ma bañu ma ku waxal man je suis quitte avec ma conscience man liggéey la xam ba ma jógee du ko ba tey liggéey laa xam xawma ma leneen ñi leen jël sax embauché leen ma leen jëkk a liggéey ba may am million kenn amu ci won 100000 francs milliardaire yi nek fi ci Sénégal je devine tout le monde bi may am million deux mille en ah, soixante mille neuf cent soixante seize soixante dix sept soixante dix huit milliardaires yi ñu defar tey kenn amu ci woon cent mille francs loolu nag mbiri yàlla la gëm leen yàlla bàyyi leen di seetlu ñu dem il ngeen gëm yàlla am na journaliste yoo xam ni journaliste jiitu na leen fi ñu ñëw nekk ëpp la leen loolu yàllaa ko def ngeen gëm yàlla bàyyi leen di tiiñal nit bàyyi leen di xas nit bàyyi leen

di di xiixaan ay politiciens di xiixaan ay kilifa pour bëgg am dara. Gaston. Hmm? Gaston li yow question biñ la posé ay taskatu xibaar waxuñu ko. mais promoteur yi ñoom ñoo wax pas ay taskatu xibaar Gaston bàyyi taskatu xibaar yi ñu def seen jàmm non Gaston da ngay di jël sa problème ak promoteurs yi mënu leen taxaw mënu leen taxaw di poser question man fu ngeen poser question ma tontu leen

ndax euh, xëy na da ngaa bokk ci ñoom. mais promoteur yooyu promoteur yooyu vraiment du ma leen tontu man du ma tontu pro promoteur yi koy posé du ma tontu promoteur yi ko posé yéen ñi ko jottalee laay tontu. Ah, yéen ñuy jot parce que promoteur yi man bokkuma ci ay kuréel de bàyyi daal. man xam nga lan laa seetlu ci yow. mais yéen ñi ko jot yéen lay tontu xam nga lan laa seetlu fi mu doon nii ci yow. jamono ji sa bisaab da nga koy sotti ndox parce que li tax wax loolu moom mooy déjà yow yow ci sa diggante ak Gris Bordeaux sotti nga ci ndox mu sedd diggante yeneen pro sotti ko dafa mel daal taay moom da ngaa sa bisaab xam naa nag li nga nguur gi la moo tax peut-être ma yokkal la ci leneen mooy Pape Abdou Fall dimanche comme tey la fi la fi woote woon ba mu wootee ba pare dañ laa woo <laughs> donc lan moo indi indi indi indi wuy waatoo expliqué waat bi ba mu gën a clair ndax nii nga ñu tontoo mënu nga ko tontoo noonu moom bi mu wootee mooy doon bàyyi sama sama sama korobara. déggoo man ba bokk ci ay querelle de bailletage bokkuma ci yooyu man bokkuma ci yooyu yéen comme da ne toog rek heure bii heure bii nit ñi yiw ñëpp toog nañu ñoo seen biir kër toog. ngeen toog fii di xëccoo bi di di téesante ngeen yàq man du ma ko ma yàq mais mais Gaston yéen ñi jigéen ñi demee ngeen toog seen wér yéen mais Gaston war a def kay dugg ci lu teen yoon nekk man du ma toog kenn di téyanteeg man Gaston ñun taxaw Gaston ñun taxawaalu wuñ dañoo nekk di liggéey fi ñu toog suñu liggéeykaay la da ngeen réglé bàyyi leen yàpp nit ñi bàyyi leen bàyyi leen yàq nit Gaston Gaston yow suñu toog ñu suñu bërëbu liggéeyukaay la taxawaalu wuñ ci mbedd bi il faut que ñu laaj la parce que yow tamit yow tamit Gaston il faut que ñu wax ak yow parce que suñu tamit bu baax dañ lay laaj nga tontu ñu yéen am na ci ñu baax de am na ci ñu baax mais mais mais euh, tuuti la benn tiers bee baax am na ci ñu baax de mais ay yàqkat ak ay waaw d'accord léegi dañu dellu si waat tuuti nañu dellu si waat tuuti parce que leer na sama naataangoo yi am na lu ñu la bëgg a laaj nañu dellu si waat tuuti euh, léegi gis nañ gason euh, benn feem la yor feem bi moo di ne buy tëgg ay combat day day joxe ay date yu bëri ay avance maanaam day tëggandoor lu bëri taxaw di ah, xaar loolu c'est parce que euh, xëy ah. na li mu jegee nguur gi ñoo ko jox loo xam ne dina mun a avance loolu yëpp balaa balaa moo jotee nguur gi fekk moom am na ay date yu bëri est-ce que du loolu moo tax nga yëkkati feem boobu non non non non loolu taxul loolu taxul may tëgg et puis leen nguur gi.